jërë jëf maa ngi leen di ziar di leen di nuyu Sénégal yëpp di nuyu monde làmb di nuyu aussi tamit vraiment ci mel ñi fi teew ñëpp tey ak président bi ñu gërëm yi promoteurs yi ñi nga xamante ne bëgg nañ lu baax bëgg ànd ak CNG changé ko Sénégal jëm kanam ñëpp tey mbëri di dund bànneex ci CNG di ko yëg c'est très important ci réew mi c'est très important ci ministre bi aussi tamit parce que dana toll jamono joo xamante ne kenn ku nekk sa àq ak yelleef da nga ko war a jot da nga ko war a am foofu lañ toll kenn duñu jàpp aussi tamit sawaay bi ñu maltraité ñu def naka suñu noonu amuñu gëdd loo wax ñu tey sanctionné la wala tey ñu convoqué la di la jéem a jaay doole ak di la jéem a xoqatal toll ñu ci réew mi tollatuñ foofu li ñu toll mooy dañoo gis koo xamante ne wax dëgg yàlla nit ku baax la nit ku sympa koo xamante ne vraiment o la yéene jàmm koo wax mu ne dafa baax dafa yaru dafa am yëg-yëg dafa may sentiment ci ñi nga xamante ne li leen di gis si biir làmb wala ñu nekk ci ay situation tey mu taxaw leen sauvé na mbër yëpp c'est que mu sauvé mbër yëpp am na combat boo xamante am na fi ñu doo fi mbër mu daal tey moom bokk na ci ñu ko soutenir sauvé ko waaw ci ci liñ jëm la moo tax ku nekk mën nañu doon la daan àdduna la ñu mais tey Malick dafa daw soutenir ko jàppale ko te loolu dafa nekk loo xamante ne ñun ñëpp la sauvé te bu leneen amoon lan mooy xaw kon dañuy sant yàlla tey ba ñu gisee Malick mi nga xamante moo ñu doy moom nañu bëgg ànd ak liggéey mu soppi CNG ànd ak moom mu jàppale làmb ànd ak moom mbër yi gis seen bopp ci liggéey jeux olympiques yi ñi nga xamante ne dañuy bëre ba sonn bàyyi seen famille bàyyi seen njaboot ñu leen di jox ay paas ay cinquante mille ak ñu kenn xamul ak mbër yi nga xamante ne dañ leen di jox ay billets

ñun Malick Ngom nañu àndal jëm ko fal bëgg amul sax jëm ko fal dañ koy fal incha allahu parce que tey bu neex yàlla ànd ak moom soutenir ko pousser ko parce que nag li mu xam dafa bëri. te boolewul dara ki wax ci ñun loolu lañ soxla. loolu lañ soxla am na ñoo xam ne Omar dañu jàpp ne yéen mbër yi li tax ngeen sonn ci candidature Malick. non c'est pas intérêt xaaral xam naa du intérêt. Ah. soxla soxlawuñu intérêt. Mm-hmm. Ah. yàlla suturaal nañu yàlla teral nañu. ñii nga xamante ne ñoo ci am intérêt. di mm-hmm. engagé ay mbër di engagé mbër yoo xamante ne tey. Mm-hmm. bëri nañu ànd ak promoteur bi di liggéey bëri nañu. ñun amu ñun xoolal la ka bu làmb. mbër moo tax ménageur dañ lay yóbbante maa nga baal ma ci kàddu yi ñu yónni la te yow boo jëlee sa 10 pour cent pare nga ci gis nañ fi ay ménageurs yoo xamante ne dañuy engagé ay mbër yu bëri dèjà kaaw kaa bi passé rek euh, booy bi dëkk yaraax caatu yaraax mais ménageur moo ko teg mhm. su ñëw lii nga ne ko da ngay signé lii par force léegi ma ànd ak CNG dem ànd ak moom pour lan loolu fan la ko teg hmm. loolu dafa war a dagg bàyyi ma ñoon junior bàyyi ma ñoon junior jàpp ko dóor ko aj ko suspendre ko jël xaalisam pour lan hmm. ñun fa lañ jëm dafa am ñoom du intérêt bu ñu hmm. waxee dëgg rek yàlla tax ñun ban intérêt la ñu ñun dañ ñu gis xool ñu ka moo ñu mën a jënd xool ñu rek nga xool ñu ko te yàlla def nañ ci ñun ay champion nañ yàlla def nañ si ñun nit ñi bëgg nañ mais ñun bu ñuy wax dañuy wax dëgg te yàlla tax xool ci yàlla ci li ñuy def xool ci yàlla ci li ñuy wax man de lii may wax ci yàlla laa xool parce que lii may wax ni ak di ko nettali dëgg la du ay sos ñu si bëri tey teg nañ seen kon donc ni ma mën a wax daal ñu ngi ànd ak Malick Ngom yàlla dogal tey mu doon président CNG yàlla jàppale ko loolu rek. mais mais mais mais.